ca Daarul Iwan di nuyu tamit euh, Serigne Mountakha Touré di nuyu tamit Moustapha Touré Daarul Iwan ak Serigne Bassirou Ndaw xalif bu daar Salaam Badara Thiam sama xarit la ñu koy ziar nekk foofu ca Kaolack di chéri Aïcha Niass moom tamit ay Niass borom këram di Badara Thiam ma koy nuyu di saalum saalum bu mag bi yàlla ko yàlla defal jàmm may ko xéewal tamit ca fa mu nekk ndax Badara Thiam nit ku yàlla baaxal la am nañu mbég ca contentement bu nuyu bu mag di nuyu Awa Dione euh, mu ngi en vacances au Sénégal de la part de Toubab di nuyu tamit bu Abibatu euh, Ndiaye Awa Ndiaye taalibe euh, Serigne Babacar Sy Serigne Sang Ndiaye chef religieux moom tamit euh, nekk foofu nga xam ne nag moom mooy ca ñax-ñaxal waaye da yeewoo ci PA yi ñu koy nuyu du ñu tamit Amet Sy ak ñoom Ndeye Diallo Marie Diop Mariam Mariam Ñang Maam Assou ñoom ñëpp tubaab mu leen di nuyu joyeux anniversaire à Fatoumata Goumbala de la part de tous les amis de tubaab ñu ngi koy nuyu bu baax di am mbégte contentement bu mag ci képp koo xam ne yaa ngi seetaan nuyu nañ tamit bu baax Cheikh Matar Camara Guédiawaye quartier notaire raqu mag sama di comédien bu mag di doomu ndeyu ki nga xam ne nag moom mooy Leyti Ndiaye nekk foofu ca Sen TV Cheikh Matar Camara nuyu nañ ko di nuyu tamit Thiat Diop rax la ci mami euh, bu wareef ak ñu naan ko Khoudia Diop di Thiat nekk foofu ci kër ñoom mami Diop Nabou Cissé Géejawaay et sa cousine Léna a ña nga foofu nag ca Géejawaay quartier Sam ca waay marché Sam nuyu nañ leen di nuyu tamit Ndeye Marie ak faatu Kassé euh, Sadio Damfaxa ñoom ngoone de la part de Karim Camara waaye princesse Latifa ñu naan ko bébé Bercy de la part de son père prince Moustapha Ndiaye ak yaayam Khadija Ba nekk foofu ci Sodira ñoom ñëpp ñu leen di nuyu Safalka sama xarit la yàlla na ko yàlla defal jàmm waaye di am mbégte contentement bu mag ci ki nga xam ne mooy Adja Marème Ndiaye ak Adja Ndeye Awa Ndiaye Adja Aminata Gueye conseil municipal saint ca mairie bu Saint-Louis Adja Aïcha Racine Sow ca CBAO ak Ndeye Adja Ndeye Fatou Mbaye ca Liberté 6 ak Adja Ngone Ndiaye ca BND ñoom ñëpp ñu ngi leen di kon nag li ñuy def moom mooy seeti Abbé Jean nee na Macky Sall bi mu dem euh, gisi ki nga xam ne nag moom mooy pape bi moom daal tey la gën a takku bàyyi xel ci Macky Sall ndax li mu def nii dafa rëy moom nag Abidjan am na loo xam ne noonu la ñëwee pour gërëm ki nga xam ne mooy Macky Sall ndax nee na li Macky Sall am yombul chef d'état koo am mu yomb ko loolu rawatina sax Pape ba dafa bëgg ba nee na Macky Sall daal ci calendrier bu ko ci xajee soo moytu ci 2015 bi dina teg tànkam Sénégal te Pape na ñëw Sénégal yàgg na moo taxit moom euh, Abidjan moom ci boppam nee na am na mbégte ñu seeti Abidjan ci mbégte bi mu am ci li nga xam ne mooy Macky Sall dem seeti Pape ba ca Rome Jokonjol Jokonjol na faax Jokonjol jërëjëf boo leen waxee joko njol abe wax dëgg yàlla wàcc ngeen li ngeen war a wax man nag abe laa fii ci ndol-ndol diggante Bambey ak ndol-ndol yëpp ñëpp xam nañ ne wax dëgg yàlla abe bi ci doxal rek doxal ak doxal rek lay dox ndax jam rek la sama tànk bi di dox fi ma dëkk nag ci ndol-ndol dañ fi wax ak ay julit yoo xam ne wax dëgg yàlla dëkkandoo bi rafet na lool ba ñuy tuddantey doom ba nga xam ne sax doo xamay kuy gune chrétien bi gune musulman bi ndax fii ñun ci ndol ndol dañoo aajowoo bu tabaski jote ñu dem tabaski ndoo guney julit ji bu taranta yaa jotee tamit guney julit yi ñëw ci ñun mu dem ba nekk aada ak cosaan ba kenn mënu koo dindi <laughs> dañoo kontaan nag torop ndax Macky Sall de wax dëgg yàlla maa leen ko wax dina tollanti <laughs> Macky bu bëggee tollanti mandat bi gisuma dara lu ko mën a tollanti ci kaw mu am xel bi mu jàkkaarloog paa bi ba na ko jàpp loxo ba paa bi na ko jàpp loxo diggante boobu lu mu fa ñaan rek yàlla da koy def ndax ci leeru Yeesu Krista foofu lépp a fay ànd bokk di leer moo taxi ma ne Macky Sall dina tollanti bilaay Macky Sall dina tulanti bu amee xel laa wax de ndax boo jàkkaarloo kilifa boo xam ne moo jiitu jàngu yi moom mooy pape bi mooy xalif général kulli koo xam ne chrétien nga ci àddina mu ji la nga gis ko gis ko sa dafa jafe man mi wax ak yéen nekk naa séminariste fu ne naa fa waaye pour ma gis koo xam ne sax cardinal bi ñu jiite Sénégal sax pour ma gis ko il faut ñu am séminaire yu mag war a Popenguine ndax dañ dul am jot ki yàlla na ñuy nekk ak ki mbiru Yeesu moo tax jot gi dafay jafe ci ñoom asuma nag koo xam ne nag da nga gis ki nga xam ne mooy pape bi pape bi ci boppam gis ko yombul yombul de gis nga aéroport moom dama koy wax sax li may wax ni man la concerné waaye xam naa ne cardinal bi du am dara lu ko ci naqari ndax leer bi nga xam ne moom la Macky Sall leer seetlu ngeen ko biñ ko wanee muy yagar yagar di dem jël tànk teg ko ci escalier tegaat beneen tànk bu mu teg rek mu ngi fekk ki day fagi leer gi di say sayi ba mu ne ko jàpp loxo laa ne maki dina tolanti bu neexee bu ko neexee mu tolanti tolanti nag boo leen ko déggee mooy nga ñam bëgg ñamaat waaye mun ngaa ñam bëgg ñamaat nit ñi ne déedéet doo ko fi ñame waaye bu fekkee ne Macky Sall am na xel dég dég dég te yaakaaru ma ne Macky Sall sax warut a ñàkk xel ndax li ko xalaatal mu bay ba élection di waaj a ñëw mu ne yagar yagari ne yogori yogori ba ne jàpp loxo pap gis nga diggante boobu mu ko nan ko jàpp loxo bu ko waxoon pap bi ñaanal ma ma ti ñaanam day nangu man de du ma ko nepp Macky Sall bu wàccee dinaa ko ziyaare ji ndax bu dee julit la ku jugee Makka ñëw ñu ziyaar la te loolu dañu koy def ba ñëpp di ko fekke ku jugee ci pape bi nag bu dee chrétien ñu ziyaar la ndax kaay ma xamal la Macky sal lu mu am nii bu doon may moom du ma raxasu ndax Pape bi boo na ko jàpp loxo Pape bi boo na ko jàpp loxo wax dëgg yàlla ngay chrétien dëgg ci yow nga yëg ko mu nekk loo xam ne dafa nekk dëgg ci yow boo jàppee loxo Pape bi doo ko bay boo ko ñaanee da lay ma Macky sal nag bu ma ko jegee woon bu ma tagg woon yu mel noonu dafay ànd ak ñoo xam ne dañu nekk ci jàngu bi xaw ma nag wax na ko jàngu bi am déet waaye bu fekkoon man la gis nga bu ma ñëwee ba teg sama tànk ci ci fi pap bi ne ba tegaat tànk ba leer bi di ma tugg balaa may gis pap bi fekk nee naa xalangu ndax leer bay say jàpp ci man ci pap bi rek laa ko mën a amee ak la nga xam ne moom la liggéey foofu ci taa Macky Sall day tolanti mbaatik yoo i mandoo xëye suuf buur yoo jot maa ngi soog a gëm ne Macky Sall bu fekkee am na xel teg teg bi mu jàkkaarloo ki nga xam ne mooy pré mooy mooy pape bi danaan ko plan Sénégal émergent bi dama bëgg nga ñaanal ma ci te maki Sall dina émerger de xam nga lu tax muy émerge ndax moom dafa nekk koo xam ne bi mu jàkkaarloo pape bi bi ma koy seetaan ci télévision bi fi ma toog ni ci ndol-ndol sama yaram baa ngi daw maa ngi naan li mu am nii képp ñu bari de ñi koy am sax dañ leen di wàññi. ndax pape bii lii nga xam ne moom la def mooy li ñuy doxalee ci réew mi nañu ko continuer na te kenn bañ koo yàq ndax diggante chrétien ak musulman bu ci ken dugg li am ci yeneen réew yal na yem foofu te yal na ko yàlla saafara ba ñëpp daa dee roy ci senegal tabaski ñu tabaski ndoo korite ñu korite ndoo jam yëpp am bu ñu defee loo xam ne dañu cey gis seen bopp ngeen wooñu ñun tamit ñu def loolu tuddante doom foo kafak roye yëpp ñun rek ñoo ko fii def ci Afrique bët gànnaar gi ñëpp a ngi ñuy roy kon nag pape bi bu demee bay recevoir Macky Sall mooy jullit pir pir ba pare jiite aussi yi conférence islamo bi nga xam ne moom mooy seen conférence bi ngeen di def yéen jullit yi mu xam loolu ba pare nangu ko recevoir jox ko loxo Macky Sall bu doon maay moom du ma raxasu billaay du ma raxasu ndax pape bi gis ko dafa jafe boo na ko jag loxo ba leer bi dugg ay Macky Sall dina man maa leen ko wax bu ko buggee dina tulante ndax ku jàkkaarloo paa bi doo am gàcce ci kaw nga ñaan ko ndax leer ba ne foofu dara du ko dindi maa ngi soog a gëm ne Sénégal dana émerger ndax Macky du kaf du foo ree paa bi ku jàkkaarloo moom wax ko sa soxla nga xam ko nga bañ ko wax lu nekkee sa xol te muy dëgg te ngay doxal dëgg yàlla tax doo gaañ kenn Macky dina tulante Macky maa leen ko wax ne Macky dina tollanti loolu may dégg ci suuf bu mu continuer damay daanu leer mais ma ma ñëw fii tuuti ci aada ak cosaan maa ne Macky dina tollanti ne leen Macky dina tollanti dara ne ku ci yaay man la abesa maa jël responsabilité wax leen ne Macky dina tollanti yéene Macky moom dina tolanti ni Macky moom dina tolanti eh bul ko mbalax bu doon koraal la nga balax ko waaye damay gërëm kon Macky dina tolanti jàpp ko foofu jàpp ko ci tak tak tak tak gén gi loolu amul mbalax moo tax Macky dina tolanti Macky dina tolanti bilaay Macky moom dina tolanti eeni Macky day tolanti wooy Macky moom dina tolanti abesaane Macky moom day tolanti oh, oh, wooy ni Macky moom dafay tolanti lay Macky Sall moom dina tolanti rek ne fun anano xen eh. a ñaaja o ndik rek taxana fooxa fapon abesaane nga ko nga xa faxa xixootinga a tig na taxom maafa ma ne Macky dina tollanti. nee na Macky dina tollanti. Eh, abesaane dina tollanti. nee Macky dina tam kana fooxa tollanti fi xoo Macky Sall faaxandik kontaana fa andik ko fara faxandik ko tang abesaani ndol ndol ko faa xam te. dina tollanti. eh Macky dina tollanti. ooyi Macky dina tollanti. eh Macky dina tollanti. eh moom Macky dina tollanti. ma ne Macky dina tollanti. ma ne Macky dina tollanti. ma ne Macky dina tollanti. moom Macky dina tollanti. eh Macky dina tollanti. Macky dina tollanti. eh Macky dina tollanti. ngeen bal ma rek ma tagu cardinal bi nag mu may ma tuuti rek ma dindi daraja abe bi delluwaat sama cosaanu séeréer ndax li nga xam ne moom la Macky Sall def képp kuy chrétien jigéen ci Sénégal boo waxee ne neexu la danga ngay wax lu la lu la naqari ndax pape bi moom ba mu wax la ba xam ne Sénégal dëkku chrétien ya ña nga faak jullit yi di jàmbaajoo di def jàmm di ñaan jam pour am te ma ne cardinal may ma tuuti rek ma dugg ci ruq wane bu dul dara sax seeraat Macky dina tolanti. Macky dina tolanti. nee na Macky yow dina tolanti. Macky yow dina tolanti. bilaay Macky dina tolanti. nee na Macky yow dina tolanti. nee na Macky moom dina tolanti. nee na Macky yow dina tolanti. nee na Macky moom dina tolanti. ba pes ne Macky yow dina tolanti. cardinal maa ngi jégalu kat dañ koy boole toujours ci diine ki kon Macky moom dina tolanti.